offre de soulagement ñett ñett gi nga xam ne Sénégal def na ko ci déndub Afrique gone sénégalais yi jël nañ li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi nga xam ne ñiy football ci seen biirub dëkk ñoo ko moom ginnaaw bi nga xamee ni euh, Sadio Mané toroxal na waa Afrique euh, gone yi nga xam ne ñoo yëngu ci li nga xam ni euh, moo nekk footballu beeñ bi tamit toroxal Afrique tey ji gone yi ko mujjee def mooy saan ñu ànd ak Murtaaru Balde def nañ match boo xam ne bu mucc ayib la football téeméeri minute ak ñaar fukk yoo xam ne yebbi nañ ko gone sénégalais yi cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci fukki millions yi doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo leen doon sikkimu am ko tamit ci ki nga xam ne mooy Aladji Malick TV gi nga xam ne ak Sénégal gi yëpp ànd nañ di leen ñaanal pour ñu gañe gañe googee nag def nañ ko ci match boo xam ne am na solo match ba euh, série penalty la mujjee Sénégal daanaka Algérie amoon na ay ginaar yoo xam ne euh, dañu ko njoñ ci biir match bi euh, mooy dugal gañe ñu daal di koy ñàkk Sénégal nag moo mujj am li nga xam ne mooy ay ginaar yoo xam ne njoñ la waaye sénégalais du romb ginaar yu nooy nepp moo taxit daanaka ñu falaxe ko daal di gañe équipe nga xam ni mu leen jàppe woon ñi nga xam dañoo ànd ak Mares daan leen ko def léegi nag gone yi ànd ak Moussa Ndiaye uh, fayu nan léegi Sénégal uh, football am ci dindug Afrique amatul werante mooy football bi nga xam ni moo gën a xariñ footballu uh, Sénégal wala boog championnat Sénégal mooy championnat bi nga xam ni mu ëpp doole ci Afrique fi mu toll nii ndax maanaam championnat yi nekk ci Afrique yëpp ñoo doon football Sénégal toroxal na leen léegi nii kon fi mu toll ci mbeddi Ndakaaru yi ak fépp foo xam ni dem nga fa ci biir Sénégal sëmbaxloo bi mi nga am gars yi bëgg nañ ndax supporter yoo xam ni réccu ci li nga xam ni mooy équipe bi nga xam ni mooy équipe bu Sénégal yeneen information ci Aladji Malick TV euh, ñi nga koy togg léegi mu nar a nekk information yoo xam ni euh, dana saxal li nga xam ni mooy sandu waaye tamit dana saxal ay remerciement ci Papa Thiaw mi nga xam ni euh, fi mu toll nii entraîneur la boo xam ni màgg na tey it fi mu toll nii bu ñuy xool daanaka li mu football ak li mu tegal gone yi loolee am na solo bu baax a baax yeneen information ci kanam